ñu wax euh, ca kanamu yoon lan moo leen ca dugaloon seen i motivation euh, lan la ngir mbir mi itam mën a leen ndax am na ñoo xamante ne ci ay manifester ci euh, procès boobu ci lañ ñàkkee woon itam seen bakkan bëgg nañ mbir ma daal daal di leer na mu gën a gaawee ñetteel bi maa ngi koy wax sànq mbokk mi dugg sax def ci joxe xalaatam mu di entreprise yi nga xamante ne ñoom ci wàllum lempo dañuy daal di nay ko fayee tan ci waxtu woo xamante ne ñoom saa suñu xëyee rek ñi daal di teg ci payooru eh, ña leen di liggéeyee ngir ne ñu ne dañ koy jébbal wàllum eh, di xëdën duñ ko daal di jëfee ba tax sax suñu eh, xibaar yi nga xam ne ñooy liggéey ci yenn organes yi amee nañ jafe-jafe ndax seen i yooyu lay nag seen compte dañ ko daal di dañ ko daal di bloqué ba tax na yëf yi nag DGID ak ñay nekk ci service lempo yëpp su nekkee dañ ci daal di dëggu maanaam duñ ca teggi tarafatal amee boo moytu nag yenn ci entreprise yu bari fii la ñuy daal di jaaree nag nag daal di euh, suux la ko waral mooy koppar ga ñu yoreel lempo dafa daal di euh, bari euh, trop ban méthode ak la ñu war a mën a teg ba entreprise yooyu lay itam mën a fay seen lempo waaye itam duñ ko nangu nangeen woo xamante ne boo fa jaaree mën nañ fa jaaree sax kër ga daal di tëj lii nag la ñuy daal di laaj ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy teewlu en direct ci Sunugal 24 ci biir émission allo Sunugal 78 140 56 56 78 140 56 56. 56 mooy mooy numéro bi nga xamante ni ñu may teewlu euh, ci ngeen mën a jaar dugg en direct daal di joxe seen xalaat ci waxtaan wi 78 140 56 56 appel direct wala appel. jaaree ko euh, ci whatsapp moo leen mën a may ñi nga xamante ne ñuy suivre ngeen mën a dugg ci euh, waxtaan wi su leen neexee itam ngeen dem ci li nga xamante ni moom moo di chat en direct maanaam commentaire yi muy jaar ngeen daal di fay a yóbbante eh, seen message su ko defee man mi fi teew ah danaa leen ko danaa leen mën a danaa ko mën a jottali ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ñuy eh, suivre en direct ndax am na ñoo xam ne moom daanaka émission yi di daal di neex dañ ciy bëgg a joxe seen xalaat waaye nag amuñu ay aptitude ngir woote eh, ci biir ci télé donc loolu itam nekk na loo xamante ne daal yomb na te méttiwut <laughs> donc chat en direct bi fa Euh, bind fa seen message su ko defee man danaa leen ko euh, mën a jàllaleel jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi ñuy euh, suivre en direct wala nga soog ñoo jël en cours sax yéen ngi suivre en direct seen émission bi nga xamante ni moo di allo Sunugal di am lundi yi ak di bu jot su neexee yàlla mi may maa teew ànd ceeg Cheikh Bara Kébé tey nag moom dafa daal di génn waaye xam naa laata émission bi. asalaamaaleykum fekk si aleykum salaam. maa ngi en direct waaw yaa ngi en direct ci Allô Sunu Gaal. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a ñoo ngi lay dellu ziar foo ñu woowee. Euh, Ibrahima Seras. waaw Ibrahima Caaroy. Caaroy waa Caaroy. waaw ngi yàlla na jàmm yàgg. ñoo ngi lay dellu ziar waaye euh, yi nag. waaw Caaroy waaw mais dafa am loo xam ne dañ ko fa dégg te ci suba. waaw. waaw mu ah. nekk ñu ne ñaare gone soo xam ne dañoo ñaq seen bakkan. Eh, ginnaaw bi nga xam ne dañoo tëju woon eh, ci seen néeg ak seen maam. waaw ñenn ñi njortees ne ab gaz moo leen daal di rey maanaam gaz carbonique yi nga xamante ne. Eh, moom moo nekkoon ca ca ba. ndax loolu am ngeen ci xibaar yoo xamante ne da ngeen ko mën a baaxee ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu. déedéet boobu waaw waaye li ma bëggoon intervenir rek mooy que réew mi. Mhm. projet impôt yi nga xam ne moom la ñuy wax ci kaw. d' accord allez-y. maa ngi déglu Madiambal Diagne Faye ce matin. Mhm. ci TFM. ñu jëm côté nga xam ne presse ñoom ñu dara xam ne presse ñu dara ci seen euh, presse. Mhm. parce que li ñu am na travail dañ koy fayee dañ koy fayee employé yi. waaw li ci kii mais nit ku ci lu dara nekk. muy man muy keneen Sénégalais bu fëgg dara nekk mhm. buñ ci gisuloon dara buñ ci gisuloon intérêt du jël seen xaalis di ko ci investir nañu waxante di fi nekk mhm. impôt c'est pour tout le monde mhm. Sénégal gi yëpp la concerné eh, sëñ bi est-ce que doo sori téléphone moo war a état allo sëñ bi waaw su nekkee da nga def sa téléphone au parleur est-ce que doo ko doo ko doo ko dindi d'accord d'accord wala nga takk ay casque nekkee da nga takk ay casque nga dindi ko ndax dégg impôt moo yore état ba tax na bu fekkente ne ñoom dañu bëgg a teg foofu ba tax ñu euh, bëgg ñu bàyyi leen impôt yi. Mm-hmm. mais bu ëllëgee conséquence bi muy jur ci euh, état mm-hmm. yi gouvernant yi doo ko lañ ciy la lañ ciy ji. Mm-hmm. parce que mu ngi nii dafa ko ñu fenn te commencé nañ jamono jàppale seen gouvernant waaw kon nag kon impôt ko fay. ku ubbi société entreprise bàyyi la xel ne da nga war a fay impôt moo jaadu. mooy dëkk mooy yoon. ci mbirum justice bi nag dégg naa ci problème magistrat bi ci magistrat bi. mais sénégalais sénégalais rek la. koo jox pouvoir bu ëpp. mun na def excès de pouvoir. ah bon mun na jël ba jël lu ko warul. déet waay donc man président ak le ministre de la justice ñu génn ci maanaam seen seen yooyu. man d'accord ma. d'accord dañ cee ndax kenn ku ne mën a limiter pouvoir mais mais loolu loolu. bu ko mais sëñ bi. loolu li ma la bëgg laaj mooy foofu est-ce que suñu toppee sa logique euh, ak sa raisonnement itam du ñu euh, des ca la ñu nekkoon maanaam dañu ne président moom mooy bëm mooy bu mi mooy amee bépp ndogal jëmee ci magistrat maanaam tey euh, président su ko neexee sax wax benn magistrat dossier boobu nga xamante ne moom ngay àtte bu ca jox dëgg bu ca wax dëgg. donc bul àtte ci sa àqulaay taal loolu itam est problème. donc loolu ça dépend ci nit ki. Mhm. kooku mi ngi dépendre ci nit ki. Mhm. président bi nga xam ne dafa ñëw ne jub jubal jubbanti. Mhm. kooku am naa yaakaar ne du teg loxoom ci benn benn dossier de justice. d'accord man sama xel may na ma loolu li ma gis ñoom. ñuy doxal man ak ma propre conviction. man gën naa ne ñoom ñu teg seen loxo mukk ci euh, ci dossier justice. di jox. justice seen indépendance totale mm-hmm. waaye ci nga sëñ bi réew mm-hmm. koo jox pouvoir eh, yenn pouvoir yi yàlla xam na ne excès de pouvoir lay def mm-hmm. waaw dina def lu ko woon moo tax fokk ñuy am ku leen di contrôler d'accord fokk am ku leen di ne fii seen seen limite fii la yem parce que buñ ko def bu ëllëgee daañu ko rëccu rek d'accord te man ñii ma gis nii tey ñoore réew wallaahi bi leen jàppalee daañu doxal justice normal lépp dina dox incha allah ci kàttanu borom bi. merci beaucoup merci. waaw man daal man loolu laa gis quoi. jaajëf. waaw kay jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah. merci merci. merci beaucoup merci merci. Euh, kontaan ci moom bu baax baax di ko nuyu ak jaajëfal joxe na xalaatam ci waxtaan wi yéen ñuy teewlu itam euh, mën ngeen def ni moom 78 140 56 56 78 140 56 56 yéen a ngi ci seen émission allo Sunugal di amee en direct ci Sunugal 24 émission wax sa xalaat boo xamante ne lundi mercredi ak euh, vendredi lay amee su jot heure waxtu heure waxtu wi nii bien sûr su jotee mais nag des fois actualité wala sax li xewee ci réew mën a tax ba dinañu daal di koy décaler wala sax ngeen ko daal di mën na mën a yéegal képp ko xam ne ak ñu teewlu ko ci mel ni Ibrahima Bodian wala Aliou euh, Koulibaly ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal Ibrahima moom moom euh, jàpp na ni en tout cas je suis d'accord euh, surtout pour le dossier de Adji Sarr Sonko le dossier des 94 milliards et des 29 donc moom mi lay Ibrahima Bodian loolu la jàpp ne am na dossier yoo xamante ne daal faw ñu daal di koy tijjiwaat te loolu nag fa mu mën a nekk ñeneen ñi jàpp nañ ne la nga xamante ni moom moo di loi d'amnistie boobu nga xam ne woote woon nañ ko président bi fi nekkoon woote woon ko ba tax ñu jàpp ne am na ñeneen ñi nga xam ne dañoo defee woon dili ak crime eh, jaawale dawre ko ci atum 2021 mars 2021 ba daanaka eh, février 2024 loolu lépp nag day daal di eh, réer maanaam France daal di xeleen di leen daal di mën daalati ñeneen ñi nag jàpp nañ ne président Bassirou Diomaye mi woote jub jubal ak jubbanti yi li la loolu nga xam ne rëkk-rëkk la moom war na ko jubbanti na mu gën a gaawee donc l'abrogation de la loi d'amnistie est une demande sociale comme certaines personnes le disent donc nekk na question yoo xamante ne dañ koy far di laajte donc ku ci amee xalaat wala mëgg caa joxe tontu rek 78 140 56 56 bokk na ci itam assise yi nga xamante ni ki démb la daal di amee dégg ngeen li nga xamante ne moom moom la daal di wax moom sëñ bi fi jàpp ne le président de la république ak le ministre de la justice war ñu génn ci euh, conseil supérieur de la magistrature foofu nga xamante ne fa la ñuy euh, dëxëñee ak euh, nase ak noo ci lépp li nga xamante ne doxalin la ci wàllu magistrat magistrature bokk na ci carrière magistrat yi nga xamante ne foofu lañ leen koy daal euh, ñeneen ñi jàpp ne président Macky Sall euh, président Bassirou Diomaye Faye plutôt mi nga xam ne moo nekk ci bopp réew ak peut euh, lan ak même peut-être pas avec le ministre de la justice actuel le garde des sceaux maître Ousmane Diagne su nekk ñoo ngi wéy di siéger foofu nga xamante ne moom moo di ci conseil supérieur de la magistrature dañuy amee loxo ci ni yoon di fonctionner teewee nañ fi kenn du ko daal di laal ndax ñoom ñooy ñooy joxe instruction yi ndax dañuy téye wala ndax dañuy bàyyi ñoom ñooy joxe ordre ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy magistrat yi magistrat yi itam ñoom jàpp ne lii de daa war dañ président ak ministre de la justice am waruñu nekk euh, le président euh, de la con euh, du ñu koy sax du conseil supérieur de la magistrature ainsi que le bi nga xam ne moom mooy nekk le vice président lii de daa war a dañ ndax ñoom dañuy contrôler li nga xam ne moo di magistrature bi te loolu nag du. équilibré li nga xamante ni moo di doxal lépp yoon ban nga jàngat ngeen ci am fàttale ne le ministre de la justice actuel c'est un magistrat wala c'est un ancien magistrat euh, moom euh, le moom maître Ousmane Diagne donc c'était un magistrat nekkoon na fi procureur ci moom euh, mën naa wax ne sàkkuteef gi nga xamante ni magistrat yi ñoo ngi koy def moom xam na ci dara ndax ci ñoom la bokk ci njaboot ga la bokk moom itam jàngatam ak conseil bi nga xamante ne moom la war a jox président de la république nekk na conseil bu am solo ndax sax mën nañu wax ni moom réforme yi yile moom euh, da caa sóobu bu baax a baax en tant que ancien magistrat waaye itam en tant que ministre euh, de la tutelle moom moo jiite wàllum yoon ak yoonal ndax euh, ndëpp moom nga xam ne moom lañ leen def ca jam ñaajoo ndëpp loolee ci wàllum yoon ak yoonal la sooxe woon maanaam nan la ñuy def ba ñu mën ko daal di gën a mën a jooyanti defaraat ko ba li nga xamante ne seetlu woon nañ ko ci jamono yi yëpp nga xam ne génne nañ ci askan wi ñeneen ñu ci bari di yooxu ne wàllum di